Ah, asalaamaaleykum àdduna bi yëpp maa ngeen di siyaar bu baax a baax Oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuyu suñ xaadim ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di siyaar waa des Prod di wax ni nag suñ xaadim tey moom xew-xew bi di ko jaale adduna bi yëpp di ko jaale waa DS Prod muy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun soxna mère Thiaba suñu yaay ju baax jooju sunu maman ju baax jooju nga xam ni moom kenn du moom nit ku baax la nit ku fonk doomu aadama la nit ku jox cër doomu aadama la xale jigéen ak mag ak ndaw ku mën a nekk ci àdduna boo dikkee dalay jàpp sa ña fukki loxo juróom muy nit koo xam si ah, bu bu ñuy seede ci moom sax ndeysaan bu bu yàggee daam nu muy demee dafa baaxam foo ko takk yegg na fa di ko jaale àdduna bi yëpp banqaas bu rëy perte nañ ko ci milieu bi di ko jaale képp kuy artiste di ko jaale waa Thiès di ko jaale waa Sénégal di ko jaale ñëpp bàyyiwul kenn góor jigéen mag ndaw képp koo xam si yaa ngi wax asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah ni lu koy jaale ndax meer ca ba meer ca bam ñëpp la woon nit koo xam si boo daan seetaan lim daan yëngu nga xam ne lu daan yeeta la loo xam si lu daan sóoraale bis bii la tamit ndax moom fan yii rek mi ngi wax ci euh, soxna soosu nga xam dafa xawoon a tawat soxna fa euh, Astu Mbay nga xam dafa xawoon a tawat ba mu génn naan jàppale leen ko dimbali leen ko ndeysaan xam nga ni ku dem bay wax lool ne dimbali leen kii te yàlla tax ku ko dimbali yàlla dimbali la tey ku ni ko woon kooku bu demee yaa ci topp kon danaa la nii ndax moom ku doon sóoraale lii la kon adduna nii rek la àdduna demal maa ngi ñëw na nañuy dimbalante te yàlla tax nañuy jàppalante te yàlla tax ndax àdduna amul benn solo adduna amul benn solo àdduna amul benn solo ñu ngi leen di koy jaali àdduna bi yëpp di ko jaali ñëpp ngañ di ko jaale bàyyiwuñ kenn nit koo xam si nit ku baax la yaay ji seex daal nday ji seex daal moom la nekkoon moom la tëddee woon ci milieu bi nga xam ni ku dikk mu boot la uuf la won la yoonu baax yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal ay rëcc rëccam yal na ko yàlla xëcc yóbbu ko ca ajjana ja gën a kawe yal na yàlla woyofal suuf ci kawam jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum taala wa barakaatu jërëjëf wasalaam